gërëm ñëpp. Euh, di wax ne nit da ngay am euh, classe am personnalité. parce que bu fekkee ne da nga bëgg a siiw. Euh, suñu baay ju baax di ñu koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wérgu yaram. di le président Abdoulaye Wade. daan na wax ne ku bëgg ñu xam la ci politique da ngay fekk ku ñëpp xam nga daal di koy tooñ war a nga cokkaas ko. bugaan bu fekkoon ne dafa tekki dara ci politique. kon ndar bii nga xam ne moom la juddoo. yaroo fi màggee dina fa doon chef de quartier <laughs> dina fa doon chef de quartier nekk fa chef de quartier nekk fa chef d'arrondissement amul commune d'arrondissement nekk fa maire de ville kon xam na ne bu laalee Mansour Faye dinañ xam na ne laal na goro président il se cherche pour avoir un nom li ma wax ci presse laa ko dama koy xamal ñaar mbir moom Bougane xam na ne li mu bëgg mooy état Sénégal topp ko ñu ne tëj nañ Bougane Gueye dani tëjoon nañ rajoom tëj nañ ko mu diaboliser boppam victimiser boppam ñu dal ci kaw président Macky Sall ñun duñ ko dul may li nga xam ne moom la wax dama ne xaalis bu jógee ci état ñëw ci loxo état bu ñu neexee dénk ko banque yi muy wax noonu da koy wax pour juste diaboliser victimiser wu attaqué ma acharné wu sama personnalité waaye moom na def attention parce que bu fekkee ne nit ku nekk li nga xamal moom ngay génnal su ma ko génnelee lenn moom dana arrêté ndax apprenti politique la boo bëggee dem ndar war nga bëgg dem kajoor war a bool boo demee ci garage bi am na coxeur yoo xam ne ñoo naan la fan nga jëm nga ne maa ngi bëgg dem bool am na apprenti boo xam ne moo lay yëpp ci biir moom apprenti politique la na noppi ah parce que liñ koo xamal buñ ko waxoon tey moom ci boppam dana leen tuub noppi ñun nag yarewuñ ci loolu mais ñu ngi koy wax une fois avertissement deuxième fois wala troisième fois moom dina génn Sénégal dem ci dëkk bi nga xam ne fa la fa fa fekk baax. dafa jàpp ne nag peut-être politique bu ñu la tëjul kaso amoo tur waaye dina xam ne ne bu dee bu dee loolu la rek victimisation ak diabolisation bi muy def ci man mënu koo am dafa am sax màqaama sax man ma koy tontu parce que teggi tuuma seetal sa der moo tax ma taxaw waaye du man maay wax ak moom li war a wax ak moom mu ngi ci kanam ni ngeen ko waxee léegi